am nañu góorgóorlu ci yàlla ba ba yàlla may leen tawfeex ci boppam fekk ñu ngi ñu ngi xomatu ci rek gannaaw bàyyi mm-hmm. ñooñu mën nga leen a weddi mm-hmm. mën nga mën ngaa bijjanteek ñoom mm-hmm. fekk ñoo la mën dëgg la am na koo xam ne dafa ne ci biir pays bi du def dara lu baax waaye kalama neex rek muy ràngal boppam ay maqaama waxuma kooku dëgg la dëgg la waaw bàyyi laa bëgg nit ñi xam ne du morom dégg nga ko waaw moo tax lii ma wax nii. waaw ci xar quraan ji. waaw mbóot la moo xam ne mbóot mu ko gën a kawe ci xar quraan gisuma ko. wala bokk na ci ñi gën a mbóot yi gën a. gën a kawe balaa ngaa jàpp. waaw balaa ngaa jàpp lu baax. waaw day fekk nga xaw ci yoonu mbaax ba pare. waaw mbaax dëgg la dëgg la. buñ la xommatee ba nga xaw ci yoonu mbaax. waaw day fekk lépp loo bëgg ci mbaax rek mu yomb la. mu yomb dëgg la. waaye ko fekk mu nekk ci xaw ci yoonu mbon noo koy baaxale mm, du mën a balaa nga ko baaxal da nga koy xommat xawale ko ci yoonu mbon ci ci ci yoonu baax dëgg la xommat ko dëpp ko ci yoonu mbon xommat ko ci yoonu baax dëgg la mooy waral mu baax dëgg la moo tax nag baat bii uh-huh. mooy tax boo gisee comme da bàyyi waxoon uh-huh. ne iman mm-hmm. moo jur tawbatu uh-huh. moo jur lépp ndax moo jur ab moo jur siddiqi yitu moo jur nabiyu moo jur mursal mursal moo jur xaalit moo jur lépp waaw parce que ku gëmut yàlla nekk ab yonantu dëgg la mu ne yonantu mu ne nubuwatu ak risalatu tawbatu ci boppam kii uh, uh, iman ci boppam moo jur dëgg la ndax lu tax ku gëmut yàlla nekk yonantu dëgg la cey yaa ngi dégg waaw kon ku xawut yoonu mbaax nooy baaxe munul baax munul am de dëgg ah? la dëgg la de kon moo tax sekkere bi gën a baax ci àddina waaw mooy a fexe ba yàlla wan la yoonu mbaax te yoon woowu la ñëpp di wër moom lay moom ngay ñaan wallaahi moo tax ngay julli ci faatihatul kitaab nga ne yàlla mi nga xam ne moo xam yoon wa waaw nga ne ko dimbale ma ngir yàlla waaw nga taxawale ma ca te ñaan gi li ci gën a yee mooy ñaani maanaam ñi nga xam ne yaa leen gërëm yàlla leen ca xawale waaw moo leen xam ba xawale leen ca ba bañ am ngërëmal borom bi nga ne ko yàlla xawale ma foofu tey tey dëgg la la ilaha illallah muhammadu rasulullah six cent six mille cent vingt six mille cent vingt waaw ihdina siraatal mustaqim waaw kenn du ko sikar semaine waaw fekk bu yàlla la boole wala si saalihi nañ allah rabbi loolu kay incha allah da amul sax waaj ko kay incha allah léegi léegi léegi léegi lay doon xanaa zikrullaah wala zikrullaah ak barga xanaa loolu la ca yàlla jiblu kon. loolu beneen wax la mu bokkut ak wax boobu. bokkut ak wax bi. lu gën a kawe ihdina siraatal mustaqima ci turu yàlla moom est am na. waaw. cey <laughs> dëgg la de. aljana aljana li baax baax. waaw. am na ziyaada ca kanam aljana. dëgg la. <laughs> cey la ilaha illallah lii de moo tax kenn musut wax mm, euh, nu lii mooy tax julli di tax nit ki du def lu bon boo déggee inna salaata tanha anil fahsaa'i wal munkar waaw waa alxuraan waaw maa ngi leen di wax lii la ay jërëjëf ihdina siraatal mustaqima ga nekk ca biir Fatiha waaw moo waral nit ki mën a bàyyi lu bon loolu moo tax yàlla yàlla di la wax na julli. waaw day tax nga bàyyi bon yuñ waaw waaw mille cent vingt. waaw bu dee jigéen cinq cent dix. bu dee jigéen nag moom cinq cent dix nga koy def. macha allah plus le pro moom may na ay kër macha allah. nañ tabata live bu mu yëg. waaw taba ci ngeen partagé ko lii lu am njëriñ la. waaw lii dafa war a yaatu ñëpp jot ci. Ah, tabata leen live bi waaye YouTube ngeen ba zem. bës leen jëm bës ngeen abonné li waxtaan yi waaw koy def youtube mhm. ngeen dem youtube ngeen abonné foofu ndax ngeen di gis waxtaan yi dëgg la Zeynab waaw noonu la si jigéen cinq cent dix la koy def jigéen cinq cent dix góor moom mooy def six mille cinq cent six mille cent vingt de ihdina siraatal mustaqima ihdina siraatal mustaqima ihdina siraatal mustaqim waaw six mille cent vingt ihdina siraatal mustaqim ihdina siraatal mustaqim cay yàlla de ndeysaan yàlla baax na mu ñu may facilité bañ ñu mën a am ko ñu jot li jot jot jot li ay mbiram ihdina siraatal mustaqima dégg la de te Fatiha Fatiha xanaa looloo tax duñ ko jàng ñaar yoon ci julli bu danga naan xanaa moo tax duñ ko ñàkk a jàng ci julli ngay wax <laughs> léegi boo gisee ñu ne la Faatiha soo ko jàngee jàngaat Quraan lépp waaw parce que baat jeey ihdina siraatal mustaqima siraatal lazina waaw an'amta alayhim eh. ihdina siraatal mustaqima waaw siraatal lazina an'amta du wax de maanaam la nga doon def ci ihdina siraatal mustaqima la nga jëlee mooy siraatal lazina an'amta alayhim eh. maanaam daf lay wan ne doo ko jëfee résultat lay lay wax ca kanam waaye duur wax de maanaam boo boo ne ihdina siraatal mustaqima waaw ba yàlla nangu waaw léegi moom la lay wax ne la lii ngay wax nii waaw suñ ko accordé waaw mooy yo gars yi nga xam ne ana xam te xéwaloon nga xam leen ci ñoom ah. joxoon nga leen xéwale àddina àllaaxira te yow mere lew mere woo leen ci àddina mere woo leen àllaaxira loolu mooy siraatal la na siraatal mustaqima nga ne ko waaw ban siraat ngay laaj waaw ban siraat nga laaj yow ban yoon ngay laaj waaw yàlla xawale ma ci yoonu njub xawala ma ci siraatul mustaqim waaw xawala ma ci yoonu njub mu ne la wan yoon nga ne ko yoonu gaay yonent yo siddiqi yi nii waaw yoon woowu laay laaj mu ne la acca bismillah yoon woowu kan moo ci xaw te duñu wax na bàyyi nga nantanga ah force kay kenn duñu wax kan moo ci xaw te duñu wax ne ba nga njàllo dëgg la de ci xaw te duñu wax ne ba nga xañaan dëgg la kan moo ci xaw te duñu wax ne ba nga soxor kan moo ci xaw te duñu wax ba nga jëw waaw julli julli mooy nit ma ca biir julli nag moo tam julli bokkut ak de ah yow fi mu toll nii moo tam julli nga ñuy wax nii moo tam julli laa leen wax waxuma leen moo faatiha de la ilaha illallah muhammadu rasulullah ah ah Fatiha kon moom mbootam moom xanaa da mbootam. Fatiha julli laa la wax na leer. xam nga moo di <laughs> de. dëgg la de ay lii nekk lii day dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. moo tax ndax laaya ja nga indi moo tax di. waaw waaw <laughs> dëgg la de depuis chips laa la doon déglu. di jógee. bàyyi bàyyiloo jumaa wala di jóge bayaalu jumaa ba marché. macha allah ndeysaan moom moo doon wax daan ngeen bokk xadara. ah d' accord bayaalu jumaa waaw <laughs> macha allah. ndeysaan mbootam julli. waaye du mbootam julli laa la wax tey maanaam tey yow bu fekkee da ngaa war julli xat waaw mën na la toogal rek nga def ko six mille cent vingt def nga julli xat <laughs> maa la ngay wër ci julli xat xam nga ko te amaana te nga julli xat muy ñaari muy ñaari xat maanaam bés bu ne am nga julli mu xat soo ko defee six mille cent dix ah. Ah,